liggéeyal moom suñu boroom mboolem xeeti cant yi ngir moo ko yeyoo di julli ci Muhammad sangub sang yi waaye noo ngi fàttaliwaat suñu kóolute si Amadou Bamba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi baloo xaq mbooleem mbokk yi di leen baal di ñaan yàlla sans borom mbooleemu jéggal ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla sama borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ñoo koy ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall waaye ak mbooleem kuy sol sa dàll te lislaam tax laa jóg ñu ngi nuyu di ziyaara mbooleem mbooloo képp ku teew ci jotaay bi mbaa ngay dégg kàddu gi ñoo ngi lay ziyaara di la jox cër bi la yàlla jox waaye di nuyu mbooleen kuréel bi nga xam ni ñoo taxawal bis bi di teg nuyoo bi ci loxol Sëriñ Pape Fall jëwriñ mu jotalal bu ko ci mbooloo mi yépp mu nu sañoon kenn ku nekk dinañu jaar ci sa tur nuyu la waaye bu ko tegee ci loxol jëwriñ rek dana mën a jot ba ci mbooloo mi yëpp ñu ngi leen di ziyaara di mboole seen waa kuréel bi ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bi bu baax sëñ Abdul Xuddus ñi nga xam ni gannaaw sëñ Mbàkke Ture nii moo dox suñu mbooloo mi di ko ziyaara te koy ñaanal yàlla moom dalay jokkook ñun ba léegi kàdduy taalibe rek li ñuy dégg ci moom kàddu yu ànd ak ay ab yar ak i teggin bay wax sant moom la ko yàlla séddi dëgg la sëñ Saliou cant a ngi xewe ci moom balaa sëñ Saliou ñëw ay jàng moo daa am ay jàng la yëf yi tuddoon ci sëñ Saliou tuddee ak cant te sant doon li gën a màgg nag ndax damay wax ni boo bëggee xam dayab lu baax dangay xool dayab safaanam sant yàlla fu mu ko tudd weddi la teg ci wet bi boo bëggee xam nan la sant toll ci yàlla da ngay xam nu weddi toll ci yàlla soo xamee nu weddi toll ci yàlla ci safaan nga xaal nga door a xool contraire am nan la toll sant mooy contraire weddi yàlla fu mu tudd sant weddi la teg ci wet bi gi faskuruni askurukum waskuruni wala takfurun la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la sadid Cheikh Amadou Bamba lahu sukuri bilaa kufuur yi la wax nga ba mu koy wax sax ca mat la bu sifaa yi lu ne ma koy ñaan ngir mu wàcce ko barabu safaan ba bi mu njëkk seet sant barabu way weddi yi la ko wàcce na waa am sini sukra makaanal kufri kon sant weddi mooy contraire léegi nag xoolal weddi yàlla nan la toll ci safaan pour nga xam ni sant toll ci lu baax suñ Saliou Mbàkke nag la ko yàlla seddi waaw loolu dëgg la waaye sëñ bi moom sëñ mag bi dafa yeggoon ci lépp lu xew mu ciy sant yàlla moom alhamdulilahi ala kulli xaalin soo ko déggee mooy bu neexee nu sant yàlla bu melee lu metteet ñu sant yàlla suñ tubaa yeggoon na ci wax yaa rabbi in ataytani fa sukru wa in manata faridan wa sabru loolu rek mën nañ ci saisir thème bi loolu rek mën nañ ci saisir bi mooy fi sëñ bi nekkoon ci ci boroomam ba tax moom xam amul lu lu mu sañ mu naqari ko ndeem neex na yàlla ba mu amal ko parce que loolu la yaroon mag ñi fi mu toll coow li coow li yoonu murit li ko sëñ bi sosee ak fiñ ci war a tënk mooy fi mag ñi nekkoon ñi gisoon borom tubaab mu yar leen fi ñu nekkoon doomi borom tubaa yi ñi nga xam ni ñoom la Seex Ahmadou Bamba meññi fi ñu nekkoon ku ko génn génn nga fi sëriñ bi bëgg ko fi ne sëñ bi dafa wax ni ci ñaari way sëñ tubaa daf cee tënk yoonu murit dafa wax ni wa man tawajjaha ila rahmani rahim raafaqnaahu sëñ tubaa nee na koo xam ni sëg jublu yàlla kese la sëg jublu yàlla kese la kon kooku war a tudd muridulaa muridulaa mooy ki nga xam ni moo jublu yàlla kese ndax te sëñ bi la na wax ni al man laa yamlikuhu sayun wala man laa yamliku sayun wala yamlikuhu sayun murit mooy ki nga xam ni yiliful dara te dara yilifu ko mooy ci yàlla rek la nekk ak nammeelam ci boromam la jël moo tax sëriñ bi wax ni pour ñu xam ñi mu àndal moom daf koo yombal moom sëñ Tuubaa dafa wax ni wa man tawajjaha ila rahmani rahimi rafaqnaahu sëñ Tuubaa nee koo xam ni yàlla rek jublu maag daa waxaat feneen ni wa man tawajjaha ila seytaani rajim faaraq naa ko dégg koo xam ne nee nga yàlla nga jublu ba noppi waaye àndaaleeg seytaane maa seytaane rajim suñ tubaa nee na faaraq naa ko tàggalikoo nañoo ko kon li nu bëgg mu leer rek mën naa leer ci ñaari bay yooyu mooy ki yàlla di jubloom te raxu ci dara yàlla di ak jubloom mook borom tubaa ànd ki nga xam ni yàllaa di jubloom mu rax ci seytaane ba ëllëg nit mën koo gis yàpp yoon wi sëñ tubaa nee na faaraq naa tàqalikoo naa ko am na feneen fu mu wax ci wa kaana xaqan alaynaa nasrul muminin nii radattu billaahi wa bir rasuli man xaalaful xaqa ku wuteeg dëgg rek delloo naa la sa borom maa ngi jaar suma baa man man ci dëgg laa ne man Ahmadou Bamba ci dëgg laa ne koo xam ne dem nga ba wuteeg dëgg man xalaful xaq koo xam ne nekkatoo ci dëgg man àndatoog man delloo naa la radatu billahi wa bi rasul man xalaful xaqa wa niltu suuli kon lim sos yoon wi leer na mag ñi nga xam ni ñoom moom la borom ñoom la borom tubaa yar kenn mësu gis ñu sàkku lenn lu dul yàlla mag ñi seen lislaam fexe woon nañ ba mu ñoŋ lislaam nag mooy ak taalube dinaa koy faral di wax ci suma waxtaan yu bari bari waa ku génn fële attaqué turuux suufi yi mais na arrière pensée lan lay bañ kilifa ka ko influencé moom ba nangootu la gëm turuuxu suufi yi kooku mooy kilifaam est-ce comprendre ngeen kon ku amul kilifa amul ñun danoo nangu borom turuxu suuf yi nekk suñu kilifa comme ñun kuréel bii fi ne euh, ñi ci ëpp quatre-vingt quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi Cheikh Ahmadou Bamba mooy suñu yaakaar mooy suñu wasila moom lañ doxale suñu diggante ak suñu borom d'accord mooy suñu kilifa kon Cheikh Ahmadou Bamba moo nu convaincre mais yow ki la convaincre ba nga wax nii turuuxu suuf yi nekkuñ ci dara parce que mooy bëgg nga jullee waa Màkka nga jullee ndoog waa waa Màkka ngeen rawante ci heure rek trois heures de temps jant bi dafa fenk lu yàgg nga nekk ci guddi kon ci ci forme forme nii rek lañ ñu wax ni amuñ kilifa mais am nañ kilifa ah ki leen convaincre ba wuñ suñ mag ñi lif leen koo koy seen kilifa am de kon ku ci ñàkk kilifa amul waaye ñun ñi ñuy lif nañ ñu bàyyi ñu yilif ñu ndax ñun ñi ñuy lif gisuñ ci ñoom benn gàkk mësuñoo tàbbi ci lu dul yàlla ci seen borom rek lan nekk fi la nu mas nekk te jógewuñu fi Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim leeral na nit ñëpp fan la jaar dafa wax ne diini kitaabul Mustafa laa xayru sama diine mooy téere bi Sayyiduna Muhammad indi alquranul karim laa xayru lu dul loolu du sama diine yàlla na Cheikh Ahmadou Bamba fay ko diini kitaabul Moustapha la gayru lu dul alquranul karim Cheikh Ahmadou Bamba nee na du sama diine la gayru la wax ñi nga xam ni ñooy contre turuxu suuf yi ñoom ci ponk lislaam lan taxaw ponk lislaam mooy lan li ñuy tudde sariya parce que ku nanguwul turux suufi rek weddi nga xaqiqa te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi Seydina Jibril alayhi salaam bi mu masee ñëw ci moom fekk ko mu jotaay ak saxaaba yi mu ñëw doonul ku nu xam waaye amul ay asaari tukki maanaam xamuñ ko ci Medinatul war gépp waaye ay jeexitalu tukki nekkul ci moom xam nga tey bu fekkoon dafa am benn waay ci jamono boobu ak dox yorul war waaye yorul dara war a jóge réew ak réew ñëw bu ñëwee dinañ gis ci moom jeexitalu tukki waaye Seydina Jibril alayhi salaam bi mu ñëwee ci Seydina Muhammad ci yoon woowu ñoom gis nañ ko xamuñ ko ci réew mi waaye gisuñ ci moom jeexitalu tukki maanaam daa wàcc rek bees tàq mu ñëw fekk yonent bi sukk ay bëti woomam mu def geste boo xam ni ñenn ci saaba yi Omar ibnu Xataab Seydina Omar nee na xaw naa sax man am ñëgg-ñëgg ci sama xol ci moom parce que waaye ñun xamuñ ko ba pare mu ñëw fekk yonent bi toog mu ngi sol lu weex tàll nag amul jeexital tukki waaye mu jël bëti woomam yi dóor ko ci bëti woomu yonent bi mbëkk ko ci daal daal di sukk ñu yonent bi di ko yaa Muhammad direct maa huwa iman ana lan mooy ngëm yonent bi wax ko lim xam ci ngëm yëpp nee na mu ni ko maa huwa islam sariya daal di ñëw mu wax ko lim ci xam yëpp mu ne ko maa huwal ihsaan nee mu ne ko an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu innahu yaraaka ihsaan de mooy di jaamu yàlla ba mel ni da koy gis bu fekkee ni gisoo sa borom sa borom moom mu ngi lay gis kon loolu mooy indi xaqiiqa ihsaan moo indi xaqiiqa moo indi tariqa am suñ tubaa ndeysaan ca xafatu mutadarrain la yaakaar naa bi muy bi muy bi muy def muy def tawassul ci ulul asmi ba tudd seen tur bi mu noppee dafa wax ni summa li liyahab imaana ci seen daraja ñoom ñooñu ma tudd suñ sans borom defal ma ngëm waaye ngëm gi bu mu doon ngëm kese nag xat saahaba waaw na ànd na ànd ak sahabatu rasul mooy ñi àndoon ak sayyiduna muhammad waaye moom imaan gi muy ñaan yàlla moom sëñ tubaa da di ko xat saahabal islaama wal ixsaana sama ngëm gi war a am na ànd ak lislaam ak lixsaan léegi nag ponk lislaam ci lan taxaw ñoom waaye lu yomba décor ci gi euh, ponk mooy maanaam baas bi tibb yi mooy ay ponkam mais est-ce que bu fekkoon dañu samp tibb yi nii lalun baas ci kaw baas dina fi nekk tànt dina fi nekk suñ tibb yi buñ ko sampoon ba mu ba mu toll nii te lalun baas bi ci kaw est-ce que baas bi dina fi nekk kon ñoom li ñuy contre ndekete loolooy lislaam ponk lislaam lan wax ponk lislaam mooy liy juróom sahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah iqaami salaat itaay zakat sawmu ramadan hajjul bayti liman istataa ilayhi sabilan loolooy ponk lislaam loolooy tibb yi mais kon lan mooy baas bi ana lan mooy lislaam léegi ponk yi li mu yanu loolu moo mat a xam li ponk yi yanu mooy li mat a xam parce que ponk yi ay keno la daa am lu mu yanu donte que bu keno yi màbbee baas bi màbb mais taxul keno yi di baas bi te nekkul ni keno yi mooy baas bi bu keno yi màbbee nag baas bi dina wàcc waaye taxul muy baas bi am de kon loolu ponk l'islam la mais lislaam réellement mooy lan mooy fii Serigne Touba jaarale woon mag ñi mooy fa yonent bi jaarale woon saxaaba yi ba bu ñu leen nee kaay leen xare ji ñu ni seen soxna yi firiku leen yàlla jaral leen faatu léegi fii borom Touba jaarale woon mag ñi te muy xew ba tey nga gis xale boo xam ni dangay yaakaar ni génn ndakaaru bokkul ci mbiram xel koom jot mu gàddaay li mu amoon ci bànneex fii yépp dem ngir borom Tuuba pas-pas yooyu maanaam yàlla jaral la yàlla jaral la ay coono loolu naafiq du ko def Cheikh Ibra dafa waxoon ni maag sëñ Bamba li mu fi indi mooy génn naafiq yi ci lislaam nee na naa fekk boo jullee mu julli boo wooree mu woor boo nattee asaka mu natt asaka waaye boo jaayee sa bakkan ngir yàlla mu lànk ne ko sa bakkan yàlla mu lànk mbooloo mu mel noonu nag dinaay faral di ko wax suma waxtaan yu bari mbooloo mu mel ni a ya sëriñ tubaa rek moo ko amaat sëriñ tubaa rek moo defaraat ñoñom bañ mel ni saxaaba ya li tax mooy ñooñ borom Touba bu sëñ bi laajee alal ñu joxe ko saxaaba yi bu bu yonent bi masaana laaj alal dinañ joxe ñenn ci ñoom dinañ dem ba duñ bàyyi dépasse suba sëñ bi laajoon alal mën na noo ba duñ am dépasse su sëñ bi wootee ab jaayante boo xam ne bakka na koy def ay coono wala faatu murit yi dinañu dem xaw ma ku dul dem nag ci lislaam bi waaye murid yi moom dinañ dem xare badar bu amaatoon tey murid yi ñooy ne ci kanam barke borom Tuubaa waaw man ngaa waas man ngaa jàpp ni ànd ak nit nag ba yaakaar ni gëm na la dee taxaw mu arrière waaye murid yi bu suñ Tuubaa woote woon bakkan duñu arrière de barke borom Tuubaa de kon di dawal sa woto bu nooy jàng téere yi comme gars yi fal ilmu laa bi kasrati riwaaya Sëñ Tuubaa nee na xam-xam du toxal toxale ci téere yu bari maanaam jàng téere yu bari yanu ko Sëñ Tuubaa nee na loolu du xam-xam xam-xam leer la bal innahu nuurun maa diraaya bala nga koo am da ngay nangul yàlla dëgg dëgg xam-xam bala nga koo am da ngay nangul sa borom mais ñu def ay lobby influencé la yàq sa bopp moo xam alal la moo xam leneen la moo xam ay théorie la ba yow ñi nga xam ni ñoo tax nga mën a jot ci lislaam julli kenn fekku la fi nga nekk yeew la nga weddi leen loolu ay caaxaan la yenent bi dafa waxoon saxaaba yi ni leen bu ma leen gën a lëgul seen bakkan yi doona goo leen ay jullit mag sans borom saxaaba yi nag réussiroon nañ ko parce que bu yenent bi masaana soxla xare dinañ laxas bàyyi seen soxna yi dem deeyi ngir yàlla waaye diggante yonent bi ak borom Touba bi saxaaba yi jeexee taabi'in jeex ku fi defaraat mbooloo moo xam ni mel nanu na saxaaba ya meloon boo leen nee kaay leen faatu ñu faatu ku dul borom Touba nañ ko génne sëñ Touba rek a fi amaat mbooloo mu mel ni mbooloom yonent ba ñett yi yàlla jaral la bakkan yàlla jaral la alal sa mbokk mi nga bokkal pas-pas gënal la sa bopp loolu ci Sëñ Tuubaa la xewaat ñett yi Sëñ Tuubaa moo ko indiwaat te loolu moo di ak murit nag parce que Sëñ Tuubaa dañu woon mag ñi saxaaba yi ñooy seen baay ci diine ki nga xam ni saxaaba yi ñooy baayam ci diine pas-pasu saxaaba ya lay yor